àdduna ay nattu kese la ay nit yu jubóowul seen biir ku ci nekk bëgg xañ sa morom bëgg-bëggam nit ñi di soxorante ñii di yéenante lu bon ña ca desit di la fexel di liggéey ba sa àdduna yàqu mbokk yi daan naa dégg ci lu yaatu ñu naan ragal yëpp yàlla la yàlla suñu borom bam ñu nattoowee boole noog ay nit yu mànduwul dara boole noog itam ay nit yi nga xamante ne ni saa yu nu xëyee ñi ngi xool nu nuy fexele nit ca booba ca fa saasa lun suñu borom wàcceel xam-xam yu mucc ayib mën seen liggéey lool te di ci dimbali doomu aadama yi ba yi jëmm yooyee cheikh bara mii ci la bakk di jëmm ju am solo lool di xëy ak a gont ci soxlaay doomu aadama yi ci i jafe-jafe ak seen ay tawatta dina leen dimbali ci lu jëm ci wàllu listixaar lépp loo bëgg a seetlu xool ko settantal ko balaa nga ciy dugga mën na la ci dimbali ci diir bu gaaw te mu am solo lool moom sëriñ bi li dina yëngatu ci ñaan yuy sëy te seen diggante bëgg mu di tax lool mën na leen defal ay ñaan góor bëgg soxna tële ko lool manqué wul dara waaye mu mel ni am na lu koy gàllankoor Serigne Cheikh Bara Niane mooy ki li ciy dimbali ba mu àntu te doo ci am benn jafe-jafe naka noonu it jigéen bu bëgg borom kër Serigne Cheikh Bara Niane sawar na ci lool ngir ñaanal la ndax lépp lu la koy tere loolee la lay fànqal ci kàttanu borom bi mbokk yéen ñi rab sonal lool moo xam ci góor ñi wala ci jigéen ñi Serigne Cheikh Bara Niane dina la ci ñaanal ay ñaan yu am solo yéen ñi nga xamante ni nii ay nit dañoo jóg seen kaw di leen liggéey te ngeen bëgg koo dindi Serigne Cheikh Bara Niane mën na la ci dimbali ci lu gaaw a gaaw yéen ñi bëgg bayre ci anam ba ngeen di yëngatu Serigne bi mën na la ci dimbali bu baax a baax bayre boobu sax dina la jox saabu bayre yi defaral la it ay càngat yu am solo xam-xam bu sell nag ci la yëngatu muy ay ñaan yi mu lay defal la ci anam gu mucc ayib yéen ñi bëgg a jokkoo 86 47 47 wala ci 76 283 35 35